حمدي وشكري لمن كل به سارا لهور دن دون صوت حند سرسارا حمدي وشكري لمن كل به سارا لهور دن دون صوت حند سرسارا حمدي وشكري لمن كل به سارة له ردا دون صوت حند سرسارا حمدي وشكري لمن كل به waa kay jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ba tey nu ngi ci comité d'organisation bi nga xam ni mooy fédération bi nga xamante ne mooy fédération Seexul Xaddim bi ni ma leen ko waxoon rek day ay secteurs yu wuute euh, lu mel ni organisation bu ñu ko waxee moo ëmb mboolem secteurs yi waaye ci biir organisation dafa am lu ñuy wax cuisine mooy ñi nga xam ne ñoo yor wàllu bernde yi wàllu togg yekk yekk yi kii ñu jàkkaarloo nag muy vice président bi nga xamante ni moo jiite waañ wi ñu fas yéene koo jox kàddoom Insyaallah allahu taala ci micro alxadimiya TV ñu bëkk wajale laaj naka ngeen waajale liggéey bu tedd bi ak digënté bi fi gan ñëwee ba tey naka ngeen taxaw ñam yi fexe ba ag ci mbolam ñi nga xam ñoko yittéwo assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki TV no ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar leen ñaanal jamm te di sakku di am mbégte bu baaxa baax ci wax dëgg yalla ak laaj bu am solo bi nga nu laaj. muy lu jëm ci walum wañ wi ak ni ñu taxawoo ñam yi ak lepp yaakaar naa li ci jiitu moy bi gan ñi ñëwé dañoo jot ndigal ci sëriñ bi to sax anet non lay démé moy nañ fexé ba am daamar yu doy yo xamné ne danañ taxaw ba bu xewal yi pare ah, ñu bu ci nekk rek mëna dem ca euh, waxtu wañ ko soxla loolu organisation cheikhul khadim def ci liggéey bu am solo ak jëwri ñim ko andal yépp ah bu loolu jàlleet ñu fexé ba ñam yi di téel tay neex ndax ku nekk xamna ni bernde mom ah, ah, warna bari waye warna neex tamit ah loolu la koy mëna def moy fexé ba manam lepp luy neexal ñam rek nga fexé ba am ko manam dal ba nga xamanteni ci gan ñi nga xam ñoo jógee Sénégal ñew ngir jëmmi Serigne Touba fas ci siyaare ji Sarsara képp ku fi ñew rek soxol dana sedd loolu yaakar na moy laaj bi ci euh ku wax nak bernde wax ay plat yu wuté digënté biñ fi ñëwé barki démb ak légui naka ngeen koy doxalé day liggéey bo xamanteni dafa fekk ngeen waxtaane ko wala naka lay liggéey bi démé ba nga xamanteni ni maanaam pèlerin bi dana yëg bopam ci nga xamni moy xéewal yi waaw loola nag moom dañ ci sant yàlla bu baax a baax ndax it comme ni nga ko waxee rek bernde moom euh, palaat yu wuute la maanaam nag wax dëgg yàlla ni ñu koy defeet mooy comme bis bi njëkk a ñëw ku nekk gis na bernde yi ñu def muy bernde yu mucc ayib ñaareel bis baat ñu teg ca lañ ca teg ba ci démb ñu soppi ko ku nekk gis na ni fii ci ginnaaw lu mat juróomi nag yee woon na fi ak ak ak ak ay gilem te yaakaar naa fi mu nekk nii benn nag desu fi te kon xam nga ni loolu lépp maanaam def nañ ko ci bisab sëriñ bi te sax fi mu nekk dañuy door a tàmbali rek foofa daal lañ tàmbalee bernde yi kon laka ngeen waajal si li nga xam ne tey lañ war a déparé fi jëm Sarsara ndax dangeen a waajal ay xéewal yu fa jëm wala ndax da ngeen dem ba foofa door a togg xam nga ne organisation Seexul Xadim dañoo am taxawaay bu am solo ci kër Sëñ Tuubaa am ko ci dëkk bi yëpp ah, ba tax na équipe bi dañoo am équipe bu maanaam équipe bu équipe bu am solo lool ba tax na bi mu desee Sarsara desee ñetti fan am nañu ñu jiitu ji muy Baay Faal yi ñooy defar xayma ak dal yéeg lépp pour buñ ñëwee am fuñ nekk maanaam xéewal yi ñu war a dem sarsaara tamit am na ci yoo xam ne fii lañ koy toggee am na ci yoo xam ne daal incha allahu taala daal bu ñu eggee moom képp kuy gan incha allah xiif moom la ñuy wax waaye incha allahu taala moom ke xiif moom du fa am xiif du fa am yi loolu mooy kàddu yi nga xam ne moo bàyyi ko nga xam ne ñoo ŋànk wàllu waañ wi muy leen sant bu baax gërëm di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi santaat suñu borom subhanahu wa taala mbokk yi xam ngeen ni euh, bërki démb ba léegi noo ci dëkk bu tedd bu sell bii noonu ñu leen ko waxee nga xam ni ci ay waajtaay yu am solo yoo xam ni ren jii kuréelu yaatal liggéeyu Seexul Xaddim ci njiitul Sëriñ Basiiru Amar amal nañ ko muy liggéey bu ama am solo di liggéey boo xamante ne ñu ngi ko tàmbalee ci ay spot ay yëgle liggéeyu Sarsaara bu am solo bi waaye ci ay ila Sarsaara muy ay émission yu am solo yoo xam ne lépp rek daa jëmoon ci waajal Sarsara mbokk yi xam ngeen ni keroog ca altine ba dëppoog la 29 ba ñu déparé foofee ca Pékin lépp am ngeen ko ci sunu image muy image yu ama am solo lool macha allah xam ngeen ni ñu déparé Pékin def escale bu gàtt foofee nga xamante ni mooy Tiwaawan bi nu jógee fi nga xamante ni mooy Tiwaawan it foofu lañ déparé daal di ñëw fi nga xam ni mooy Saint-Louis ci visite bu am solo boobu nga xam ne ren dolliku na ci liggéey ba daal di ànd ak sëriñ Bilal Sidi bi ak mbooloo moomu nga xam ni ñoo jóge Ndar ni ngeen ko gisee suñuy vidéo daal di fanaan si fi nga xam ni mooy daare Mafatihul Bichri bi nu xëyee xam ngeen ni ba yor gi dang jàpp midi lañ fa déparé daal di ñëw fi nga xam ni mooy Rosso Sénégal mbokk yi daal di dajeeg daara nuuru daare nii muy lu am solo ñu daal di nuy ganale ganale tatagal nu dalal nu ñu daal di jéggi ñëw Rosso Mauritanie foofat lañ déparé xam ngeen ni ca guddi googa lañu ñëw fi nga xamante ni mooy Mauritanie ñëw nuyu sëriñ bi saafonteeg moom dem ca Dalia xam ngeen ni niki démb ci lañ amal ziar yu kullu ziar yu am solo yooyu nga xam ni ñu ngi ko doon def di ko ànd sëñ Sidi Gànnaar moom sëriñ Mourtala muy lu am solo waaye mboolem secteur d'activité yi nga xam ni ñu ngi fi te nekk ci ay liggéey gis ngeen ni daje nañoo ak ñoom waxtaan ak ñoom lépp loo xamante ne lu ñu war a xam ci ñoom la fexe nañ ba xam ko ci ñoom muy lu am am solo loolu nag jamono boobu foofu lañ toll nga xam kon groupe bi nga xamante ne mooy groupe communication bu Sarsara yaatal liggéeyal Serigne Touba foofu lañ toll ci liggéey bi muy lu ama am solo di loo xam ne ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel ah, jëm jii ma taxawal mooy Serigne Ousseynou Thiam moom it si bokk ci ñi nga xamante ni dañoo ŋànk liggéey bi wala sax muy jëwriñu li nga xamante ni mooy communication bi sëñ Ousseynou mu mel ni ren ah, def nañ liggéey bu ama am solo ci wàllu communication te wax naa ni communication bépp mbir boo xam ne bëgg nga mu jëm kanam faw nga fullaal ko mbir moo bëgg mu jëm kanam ci lislaam ak ci woote ak lu mu mën a doon faw nga jëmbat waa nga la nga suuxat li nga xam ne mooy communication tey boo ma doon tiireel bilan ana lan nga may indil ci communication waaw alhamdulilah koso ñu ngi lay nuyu bu baax euh, di nuyu mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan fu ñu mën a nekk rek euh, di leen ziar di leen ndokkeelaat di leen ñaanal jàmm tey ñaan yàlla sunu borom dolli ci réew yëpp jàmm moo xam muy Sénégal wala moo xam muy Mauritanie koso ni nga ko waxee noonu la si côté communication ñu ngi ci def liggéey bu am solo waaye ànd ko ak kuréelu Sarsara yaatal liggéeyu Cheikhul Khadim nga xam ni depuis ñu tàmbali ko ci caravane yi nga xamante ni moom lañ doon def euh, maanaam don sang wala wala consultation gratuite yi nga xam moom lañ doon def ba ni ñu déparé keroog nga xam ni la ñu départ altine ce Croix Rouge loolu yëpp yaakaar naa ñi nga xamante ni ñoo ñuy faral di topp yaakaar naa ñu ngi gis liggéey bi fu mu toll yaakaar naa bi ñu egsee fi nga xamante ni moom moo di Ndar Ah, def nañ fa taxawaay bu am solo boo xamante ni ñu ànd ko ak sunu mbokk Bilal Sidibé ci liggéey am solo ay exposition yoo xamante ni am na ba ni ñu egsee Rosso euh, Sénégal nga xam ni euh, daayira bi fa nekk mooy daayira Cheikhul Khadim bi nekk foofu taxawu kuréel gi loolu yëpp ko di ngeen ko gis ci li nga xamante ni moom moo di liggéey bu ne mel waaye bu ñu egsee fii Koso euh, ci fi nga xamante ni moom moo di Mauritanie ñu ànd ak liggéey bu am solo boo xamante ni Al Khadimiyyah mu ngi koy def waaye ànd ko ak Sarsara TV ak Afia FM ñuy def liggéey bu am solo loolu yëpp nag ngir dundal li nga xamante ni moom moo di euh, bisub Serigne Touba yi nga xamante ni euh, dafa waxoon ni ku ko ku ko fekk sarsaara siyaare ko sunu borom jéggal la àdduna ak alaaxira muy nag. liggéey bu am solo te damay wax jamono fi mu toll uh, koso lépp loo bëgg a médiatiser yakaar naa foog nga dem ci média yi pour ñu médiatiser ko li ñuy ñaan rek mooy comité bi ñu gën a comprendre suñu liggéey ci li nga xamante ni moom moo di uh, kuréel gi mooy uh, liggéey bu metti la ñu nekk ndax bu fekkee da ngay wax nit ñi di la dégg wala ngay wax nit ñi di la gis ñoña war nañu am ay juntu yoo yo ni koso suñu joggé rek mëna andat ak euh, ñi nga xamanteni ñoy mbokki talibé ndax tay waxna la ni am mbokki talibé yo xamanteni ñu ngi Espagne ñi nekk Brésil ñi nekk sax Sénégal wala ñi nekk fi ci biir réew Mauritanie bëgg nañu sétane té yakarna suñu amul dëgg dëgg dëgg dëgg moy lool du mëna euh, du mëna a waye nak ñu ndokkeelaat bu baaxa baax euh, comité bi nga xamanteni ñom lay laay liggéeyal muy comité pilotage bi nga xamanteni ñoy yëngu ci walu communication yow nga bok ci bacci ñi nga ci ngeen def ci liggéey bu am solo vraiment ni ko waxee rek noonu la liggéey day am koo xamante ni tey mooy nekk ci bopp ba mais yaakaar naa liggéey bi yéen ñëpp yéen la ay def liggéey bu am solo koso jërë ngeen jëf mbokk yi mi ngi noonu ngeen ànd nag seen télévision alxadimiya TV macha allah ni ma ko waxee ñu ànd ak Serigne Mbegere eh, ci li nga xamante ni mooy montage yi ak jekki-jekkal yi wànd ak seen Mouhamed Kane ñu ànd ak moom ci vidéo yi ak ci mboolem yi nga xam ne mooy assistance yu am solo yooyu ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm seen mbokku taalibe Serigne Kosso Seye mafatixul bi Serigne moom ngeen àndal eh, fii nga xamante ni mooy Mauritanie wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu شكري لمن كل به سارة له ردا دون صوت حند سرسارا حمدي وشكري لمن كل به سارة له ردا دون صوت حند سرسارا